voilà c'est vrai que chaloupe bi ça a été une grosse tracasserie maanaam lu ñu jaaxaloon la surtout si jamono ji jamono yi ñu weesu d'ailleurs ba léegi sax jógee gu fi mais taxoon na ba sax euh, déjà il y a trois ans rencontré woon nañu administrateur liaison maritime Dakar gore bi mu waxoon ñu ni gouvernement bi passé na une commande d'une nouvelle chaloupe il y trois ans ñu xaar ba dernièrement vraiment chaloupe bi wane ay euh, ay vraiment ay euh, disposition d'insécurité ba tax benn suba ñu def euh, benn manifestation au niveau de l'embarcadère daal di tëye xale yi pour marquer le ku ne mënuñu jël chaloupe bi pour jàngi ça a duré vingt quatre heures lu directeur général de du port autonome ñëw fa ñu am ay échange yu ñu waxtaane en tout euh, amitié hein, en toute euh, fraternité mu expliquer ñu situation bi déjà lu bëri xamoon nañ ko mais daal ñu ni ko ñun daal lu ñu soxal daal mooy làmb daj waaw diggé yi moom ah, xam nga mel na ni parce que ba léegi ñëwagul <laughs> nee nañu nag jël na mu ngi ci yoon bi de mu ngi ah. ñu ngi koy gàttandu yàlla na ak seeg jàmm ak salaam mu mën a profité d'abord à nos filles mais aussi aux habitants de Gorée parce que Gorée étant une île habitants yi amuñu benn moyen de de de de de de de de transport gannaaw chaloupe bi su chaloupe bi paane ñoom seen dem ak seen dikk day taxaw te loolu aussi xam nga droit la la liberté d'aller et de venir comme que loolu mu ngi si yoon pour saafarawu ñu ngi ciy sant yàlla. waaw ko defee nañu préparé fête bi Macky Sall cadeau fin d'année la leen jox talu baan ci yoon bi de on sera à Gorée incha allah. waaw j'espère bien que vous tous vous serez nous tous nous y serons incha allah pour accueillir euh, la nouvelle chaloupe euh, di aussi encourager ña nga xam ni ñi ñoo doon jël chaloupe bi pour jàngal sunu doom yi notamment les professeurs nga xam ni dëkkuñu fa dañu dëkk dakaar di jaabante les surveillantes de braves dames yoo xam ni dañuy jóge Dakar di dem euh, au niveau de l'école maanaam tout le personnel buy encadrer suñu doom yi foofu dans cette école la ñu ngi leen di delloo njukkal di yaakaar ni chaloupe bi dina wàññi ay jafe-jafe n'est-ce pas assurer aussi sécurité merci beaucoup